Babou Sarr a ngi noonu di yëngal waaw waaw seen ndamal daara bu Joof yor a ngi noonu doomu ndeyu bu Obali doomu ndeyu Cheikh Thiam cey doomu ndeyu Thiawri la ngi wow quelle ambiance waaw waaw supporter yaa ngi de supporteru Ndamal Daaro yaa ngi noonu mu ne fii ragal du des waaw waaw waaw waaw waaw kuma dofe na ngi noonu seen siyaar nañ la waaw normal lépp jàmm waaw nice waaw ngañ seen tuus nga ba pare jëliñ tuus bi doxal ndànk nag ñu jéem a waxtaan waaw gis nga combat bi waaw léegi rek noo leen ko paree waaw pare tout waaw ah. dafa ah. waaw ñu waxtaan rek na mu taxaw